salaamaaleykum. Paa Moussa ñoo ngi lay nuyu. fay kaay sama sama njaago bi. di la jaale li kaay kaay. ñoo ngi lay jaale li waaw waaw di leen delloo njaal bi tamit. waaw li ñu bokk. ci sa relation ak Aziz. Aziz sama relation moom defe naa dama doon wax ne sama xarit la waaye gis naa ni xarit Sénégal gi yëpp la. waaw donc mi ngi noonu. Aziz daal yàlla na ko yàlla yërëm ndax nit ku baax la woon loolu la ma wax. nit ku bëgg kaf bëgg ree loolu la ma wan nit ku teey nit ku bëgg nit ku amoon joie de vivre daal donc mais nii la yàlla tuddoon yàllaa ne woon tey jii ñuy wax nii mooy doon huitième fanam ci suuf donc yàlla na ko yàlla xaare àjjana daal ah, bi la mais bu ma yëgee deseem comme tout un sénégalais rek da ngay dof da ngay imaginer da ngay naan lii nu mu mënee nekk ndax lii da nga koy dégg ci ñeneen ak feneen mais ku mel ni Aziz bii nga xam ne chaque jour nga gis ko si télé bi muy kaf di ree nan la ko nit mënee tiim rey ko moo tax it des fois mën na la doo comprendre daal des fois dangay gis histoire jàmbur du la affecté mais buñ ko defee koo xam dëggantaan ci ngay xam ne ndeke Sénégal tamit nii la mel tey jii ngay danseur di danseur euh, tey jii ñu tudd ci seen benn mbokku danseur boo xamante ne nii mën naa ni sa sœur la que yéen a bokk fi ngeen nekk muy euh, Papa Youssou. Mm-hmm. tey bi nga yëgee loolu tam nan la la def Pape Moussa. Euh, ba mu ko yëgee tamit comme nu ko Sénégalais yëpp déggee kenn gëmu ko man ba tey jii may wax ak yow nii maa ngi xaar mënoo ci sax wax parce que man dama yàgg wax ni man ba may dégg soog a dégg turam dama ne leen de dañoo xamul mm-hmm. waaye xam naa ne Nabou Leye bu paaka jub si woon pour rey Aziz mën naa plonger si paaka bi paaka bi ray ko moom man loolu laa ko xamal mhm. mais nit nag doo xam moo taxi nag li ñëpp naan moo ko def yàlla bu fekk bum ci laale bu mu ci kii mhm. sinon xol yi dina gën a métti mhm. looloo gën a méttil kaaw Aziz ndax liñ ciy dégg ñaar ñiñ ciy dégg mais nag wax dëgg yàlla ci li ma ko xamal man mënumaa gëm ni noonu la demee loolu daal la ci mën a xam. macha lan ngay wax justice. justice mooy ñu dimbali ñu sénégalais ñun fii lañu am fu ne la dem nag waaye saa yu ñu demee dañuy yàqamti bëgg a ñibbi ndax Sénégal lañu am mais nag Sénégal a ngi ñàkk wóor te loolu baaxul nañu dimbali renforcer sécurité bi def xoolal Europe foo tourné dangay dox tuuti gis ay policiers jàpp si ñu kenn dañuy def seen ronde yooyu moo war a am Sénégal. dafa war a am na ñu jàppale dimbali ñu rek loolu rek la. ok set sama waa jee. salaamaaleykum. si na def. maa ngi am jàmm. man maay Badou def sa relation. sama relation ak Aziz ñoo bokkoon liggéey bi sama mbokk artiste nag nekk ku baax nekk koo xam ne bëggul kenn mer ñoo bokk benn groupe association chorégraphie danse saa bu nit waxee rek doo déggee baatu Aziz jàmm nga ciy dégg bëggul kenn mer. muy nit ku baax di wax yàlla na ko yàlla yërëm di ko jaale àdduna di ko jaale ay mbokkam di ko jaale tamit ñun suñu bopp mu la di wax vraiment métti na métti na métti na lool métti na na ndaw di nag yàlla ko yàlla yërëm moog waal xare leen àjjana ñun fa fekk ak ñun fa fekk di ko jaale ñëpp nag man nag sama xol dafa tooy mënu ma wax waaw maa ngi koy jaale ñëpp nag di ko jaale ñëpp di ko jaale tamit yaayam yaayam ñàkk na am na fu ko féete woon c'est-à-dire dafa nekkoon ko xam ne bañkat la liggéey rek la xam barke yonent bi doy na waar. yaayam lan sama xol dafa tooy mënuma xool mënuma ko xool billaay wallaay taalaay mënuma xool yaayam parce que nit ku ne da koy xool si sa bopp rek nit nit rek la mën a doon mais jëf ji ñaaw na ñaaw na torop torop torop torop torop torop torop torop man ba léegi sama xol dafa fees billaay wallaay taalaay kontaanuma kontaanuma dara lii nag nañ ko arrêté rey gi bari na xaw ma lan la. rey gi bëri na trop nañ ko wàññi nañ wàññi rey gi rey gi nañ ko wàññi nañ wàññi rey gi métti na léegi ñaari fan ñett ñu ne rey nañ diw ñaari fan mais lii lan la ba jàmm la ay waay yal na def jàmm yal na yàlla defal ñëpp jàmm doy na waar fekkee balaa la daal yal na fi yem